Revue de presse. El Hadji Bakhla Mbaye day a ah, la fa sànq ca alal day ma ne bari na lool la ko ci yéene ne kay ne lak ma la Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur waaw nee na gis nga lakk ne nag maanaam la mu yàq ca xaalis bari na ma ca séddale ak la bari na diggante juróom-ñaari milliards jàpp nag juróom-ñetti milliards ak genn wàll la ilaha illallah la la ministre de l'intérieur yee mu ca ndaxte daal woo nag nit ñi ngir ñu bañ a kon politiser Bakhla Mbaye joojee yéene kay ma jamal danañ leen puusandee gum mënu caa ñàkk de ña nekk ca taatu courant yeeg yooyee ah ma ne danañu fa jugee aa ah, ministre bi ne waaw le soleil yéene kay ne politique xam ne nag njiitu réew mi daal dina ko yëkkati day ngir suñu wàllum koom-koom waaye itam wàllu dundu askan wi de waaw ah, ko wax am na ay jéego yoo xam ne yu am solo day nguur gi def na ko waaye tamit am na ci ay góorgóorlu yoo xam ne day war nañ koo def boole ca nag askan wi le nag ci ay coppite yoo xam ne ko namm nañ koo indi ci wàllum suuf si di aéroport international Blaise Diagne day waaw ma ne fan moo dox suñu diggante ak ubbi waaw ma ne la ministre Maïmouna Ndoye day waaw nee na fi mu nekk nii lépp da pare na ngir avion a eh mi quotidien day wax waxet na de wax waxet na de ah waaw parce que ministre bi nee na lañ ko waxal nag ci aéroport Blaise Diagne bi kan moo ko waral nee na dañoo soppi ay waxal ko loo xam ne waxu ko ah maa la ko wax Abdoulaye Wade nag ci tribune yéene kaay day daal dina expliqué lan moo tax nag mu tuddee ko kon aéroport international Blaise Diagne la yéen gis nga kii lañ koy tuddee aéroport bi ko moom waaw loolee faux débat la waaw waaw ma ne la président Macky Sall bu ko waaw lijjanti kon mbir mi yàgg na mu koy lijjantee nag du dara lu dul bis bi nga xam ne ci la ñu war a ubbi nag maanaam teranga joojee di mu daal di invité nag président Abdoulaye Wade ñu dikk daal di dagg na cordon ba kañ ko tuddee na waaye tamit dana tax ba ñoom ñaar ñooñee Abdoulaye di juboo juboo tamit am seen digganteeg sénégalais ministre bi day tey la réew mi quotidien ne tey la tey kay ca assemblée cay démb ca palais ba enquête yéene kaay ne werante bi nga xam ne ñu ngi koy werante ne ci bor bi nga xam ne moom la Sénégal am day date bi waaw président Macky Sall day fayu na de bu dee dañ koo dooroon day fayu na ndax d'accord Marème day njiitu réew mi nee na ko noos libération yéene kaay ne dëgg biir la Macky Sall wax sax ah, waaw waaw ci lu jëm nag ci ay kàddu yi Abdoulaye Wade bor ba waaw coowal nee na gis nga élection présidentielle 2019 yi ah. Ah. la woo xam ne day du indi ngaañ ci suñu koom-koom gii di ko yéexal ak yooyee déedéet ay jéegoom di ralentir mukk ci këru àdduna moom président Macky Sall yemu ca ndaxte nee na te nag boo leen bëggee dégg-dégg day suñu wàllum koom-koom gii waaw ma ne ma ngay bëggee jegee nag téeméer boo jël juróom ñaar yaa yokkute gi 7 pour cent yi nga xam ne moom le plan Sénégal émergent bi day defoon wa horizon 2019 waaw ngir falaat nag Eh. premier tour eh, eh. premier tour maa la ko wax ca mairie kon la ñu ko lancé ci teewaayu Mbaye Ndiaye ministre d'État ci teewaayu directeur général u APEX day Mountaga Sy ci teewaayu directeur Sow Mbaye Ndiaye ministre de l'intérieur ne opposition bi dara taxu leen a jug lu dul wàccee réew mi rek ñaaka dal bëgg fi indi instabilité libération yi ne kaay ne en tout cas Abdoulaye Daouda Diallo day na Fuuta ak li ko ma ne la la fa nekk ca mbooloo kenn door tànn nañ nag fi ñu far ca jamono joojee la ko si yéene kaay nee na Khalifa Sall day d'accord naa fay nag xaalis bañ koy a dana ñetti téeméer ci ay millions ay avocat ci boppam kon tey ji da nga di xaar nag ca tribunalu Ndakaaru nee ma ca greffe waaw ngir déposé ci kon chèque ba xaali baba kumba ku ko mën a ku koy jéem bokkul da gis nga xaalis waaw bu ñu sukkandikoo ci ay jegeñaali Khalifa Sall day nee na sénégalais yi de ay nit ñoo xam ni seen yoon nekku teero rek ne danañ fayal maire de Dakar ay xaritam ba ay kilifa diine la wax maa la ko wax enquête ne xalifa day tey lay déposé kon caution ba est-ce que suñu justice bi am na indépendance moom nañ seen bopp réew mi quotidien ne mukk ci këru adduna la wax ci addina mukk yu sukkandikoo ci ay kàddu yoo xam ah, ay kàddu yu maître Madické Niang waaye dama ne ki ministre de la justice ci boppam kon moom mooy patron waaw ba noppi maître Madické Niang waaw mi nekkoon ministre de la justice topp président Macky Sall ci seetal xaalis boo xam ne kon bu saltale di blanchiment de capitaux waaw mais moom maître Madické Niang en tant que ministre de la justice moom moo ne woon topp bi nga xam ne ñu ngi koy topp Macky nii nañ ko dakal nañ ko arrêté ñu daal di koy dakal eh way samba ana indépendance ba moom Madické yemu ca ndaxte nee na bi mu nekk ministre de la justice day waaw ñuy topp Idrissa Seck kon ci wàllum santé Thiès moom Madické moo ne woon Idrissa nañ ko seetal illallah oh, mar de itali réew mi ah, waa grand parti seen ba ca Yoff ko wax te moo ni ba day ma daw ba léegi ni la de waaye njiital grand parti day waaw daxul nag yóbbu mbir mi ci yoon parce que contrat daw ba léegi ni le yéen a kaay te nag bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay xabaar waaw Baba Taña day Malick Gakou joxoon na ko ñaar fukki million ak ñaar ilaha illallah dem naa ca lamb ja tribune yéene kaay ne carte ga leer na de lig Nicolas day ah signé na ak Sen TV eh. ah yéene kaay gi ne Gris Bordeaux day ak Balla Gaye 2 ah Sen TV la jëm as sport waaw nañu Aliou Cissé day vraiment nag yayool na nag loo ëpp juróom ñaari million as sport yamu ca ndax nee na Aliou Cissé day Hervé Renard waaw moo ko ëppale salaire juróom ñaari yoon la ilaha illallah <laughs> nit ku ñuul ci boppam moo xeeb boppam moo tax mën naa la tëjal